ubbil l'observateur njiital kaso yi ci réew mi di directeur administration pénitentiaire ab lettre bu mu bindoon li dal Ousmane Sonko fa mu tëdd ca kaso ba jël lettre ba yónnee ko garde des sceaux ministre de la justice maître Aïssata Tall Sall l'observateur na nañu lettre ba mujj ci penc ma yëf ya senn ba far siiw lettre ba dana kii di Ousmane Sonko ñaari fan a ngi yoo xam ne mi ngi ak bu toll ci 40 boole ci di wàccu ak di waxtu wax ji l'observateur mi ngi ñuy wax xew xam le ne dinañ ci enquête ba xam kan moo siiwal lettre DAP bi DAP di direction administration pénitentiaire Le bind na ne ñoo ngi yëglu ak di alerter ci état de santé bu Ousmane Sonko état de santé ba mooy yaram wuy tàng jër ba yegg ci 40 degré ak wàccoog waxtu moom la kii di Ousmane Sonko di dund ñaari fan yi li génnee document bi nag Le Quotidien nee nañu moo alam ñu bari ba tax procureur de la République bi ubbi lu ci ab enquête source di ñu wax a def na de la République Abdou Karim Diop mi ngi rëbb ak rëbb lu Ousmane Sonko yi réew mi quotidien nañu ci xët mu njëkk Sonko borom maintien teniratul fa mu tëdd journal la témoigné di laaj leetar bi seen ndax du état bi moo organisé fuite bi maanaam moo teggi pexe yi tax mbiri siiw teg na ci moom yéenekaay bi dañuy wax ne sikki sàkk amatul ci ne kii di Ousmane Sonko ak wér géramam doy na waar am na document officiel bu koy prouvé Juan Branco ci xët mu njëkk Vox Populi ma nga fay wax ne keroog fukki fan ak juróom-ñaar ci yóoru ga ca ndar jàpp alxames yéenekaay bi nee nañu gaalug loo gu déparé woon Sénégal doon dem Espagne moo këpp ci waaxi ndari yi marine woon ca gaal gi ci enquête ndar gaal gi këpp enquête nee nañu ñoo nga ca enquête ngir am takk ñàkk bu wér ci ñaata nit ñoo ca faatu ña mucc journal bi nee nañu jël nañu leen delloo leen gànjool ci seeni mbokk waaye amul kenn ci ñoom ku nanga wax ci li xew li xew mu di mbëkk mi sursoi mi mel ne ku naan ñu jël gaal dem Espagne yàqi tànk jamono ji ndax ña fa nekk bu weer wi deewee mu di fin octobre ñëpp la rung dugal ci avion dellu si leen ministre de la défense bu Espagne mi ngi ci réew mi démb la fi yegg si te loolee moo ko fi indi l'observateur a lijjanti laata casse-tête bi mooy féewaloo gu rëy gi ñu nemmeeku ci seen langue gi di APR fant gaa ngi ne kurru ci biir APR l'observateur mi ngi ñuy waxit taxawaay bi ñu xaar ci président Macky ngir mu lijjanti ñaaxo ñaaxo yi am ci parti bi ba ñëpp nangoo topp ci ginnaaw Amadou Ba jàppale ko ci ñi fas yéene topp ci ginnaawam jàppale ko ba mu am ndam moom Amadou Ba kenn a ngi ci ci libération ubbil yéenekaay bi mooy Moustapha Messere responsable politique ca Mbàkke tax mu jóg fas yéene jàppale candidat bii di Amadou Ba nee na a dégg waxi continuité renouvellement doon def ne tere nañu ñuy importer ay ginaar am na ñuy nëbbatu du dugal ci réew mi ay cuisse de poulet te cuisse de poulet yooyu ñu jële bitim réew du ko dugal ci réew mi musiba la ci askan wi poulet morgue la ñu ko tudde point actu ne ñu ñi ci secteur bi nee nañu la ñu bëgg mooy état bi wax ci ni mu gën a gaawee ngir mu dakk ne suñu ko seetaane du jur jàmm baaxul ci askan wi baaxul ci employé Walf Quotidien bind ne ñi yëngu ci wàllu poulet de chair jamono ji chair de abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne xibaar yu wér te wóor réew